إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد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 diko bak diko di gërëm di ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkar te saxal ñu ci siratal mustaqim may ñu dégg ak topp mu dekkul ñu boole ñok yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi jannatihi alula lu ko yomb la yàlla ñu fi yàlla defal ñuy julli tay sëlmal ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaax sunu bopp di ñaax mboolem jullit ñépp ñu gën a góorgóorlu ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax nit mënta mucc ci lu dul ñaar ñooñu leneen lu nit yor lu dul alquran ak sunna bis dana ñëw mu bëgg alquran ak sunna mu sori ko kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp waaye yàlla wërsëgal ñu ñu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi nag yombut ndax yi niñ ciy xeex dafa bari yàlla dogal na ni jamono bi ñu toll nit su ragalee rek jaamu yàlla dana ko bàyyi kon yàlla bu ñu yàlla ragalloo incha allah tey ñu ngi waxtaanee. nuzul isa alayhi salam narumu woon def ci waxtaan bisu tey waaye dafa am benn mbokk bu ko sàkku bu ne woon dafay ñaan ñu def ci dars comme niñ ko defee ci yeneen alamat fa al kubra yi nga xam ne ci la bokk bi ma waxee loolu ma ne ko insha allah kon topp nañ sa ndigal jubluwaayu waxtaan yi du dara nekkul wanewu nekkul jublu ci feeñ nekkul jublu ci dara dañoo jàpp ni tool bi dafa yaatu kenn ku nekk war naa def dara loolu rek mooy jubluwaay bi mais jamono bu ñu demee ba seetlu leneen lu bokkul ak jubluwaay bi rek biiznillah danañ ko bàyyi kon yàlla nañu yàlla musal ci cheytaan yàlla nañu yàlla musal ci cheytaane ak i fexem léeg-léeg dina jaar ci ay nit yàq léeg mu jaar nit ci boppam yàq kon ñu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci cheytaan xam ngeen ni isa alayhi salaam moom it wàccam dafa bokk ci mandarga yi mujj jamono nga xamante ni ci asratu saa kubra yi la bokk maanaam yu mag yi nga xamante ni bu ñëw rek beneen ba da cay topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na saa al kubra tatra dañuy toftaloo bu ñëw moroom ma topp ca borom bi xabaar na ci alquran ne yahud alayhim laanatullah ñoom dañoo wax ni dañoo rey Isa ñoom loolu lañu ñu saxal ca seeni wax ak seeni bind ba seen caaxaan yooyu dem nañ ba nasaara fekk leen ci te nasaara ñoom ñoo waroon a bañ lu mel noone ndax ñoom kiñ ñi moom la ñu su fekkee ni dañu ko rey daaj ko ngem bu ko ba pare ne mooy seen yonent di ko jaamu kon liggéeyu seytaane mi ngi bëgg jàll wax bi yahud wax ak nasara bu jullit bi bëggee mucc ci am dëgg ci wax yu bari yooyu ban moo ciy dëgg na dellu ci alquran borom bi subhanahu wa taala nee wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum ñoom yahud ñu ngi wax ni dañoo rey Isa daaj ko nasaara yi ñenn ci ñoom ñuy nastuur yi yu demee noonu ñoom it xaw a gëm wax jooju borom bi def leen a ci alquran su dee yow jullit nga nag kon subha amatul lenn luy lëntal sa xel ar amatul borom bi nee na reyuñ ko daajuñ ko waaye kañu rey daaj ko dañ koo niirale ak isaa ci niroo jëmm nuroo melokaan nuru wax am na ñu joxe ay tur ñu ne diw la diw la diw la mais loolu itteelul li itteel daal mooy am na koo xamante ni borom bi joxaat na ko jëmmu isa bi mu ko joxee jëmmu isa bi ñu ñëwee di wër isa kooka lañ fa fekk fekk isa moom jóg na dem yàlla subhanahu wa taala dafa yëkkati isa te ci jamono boobu ci jamono xeex bu metti la woon entre yahudi yi ak nasaara yi ci ban diine mooy def ndax diine Isa boobu fekk na mi ngi tàmbalee ñëw di dox par ndànk-ndànk yahud yi bugguñu seen diine daanu loolu moo sababam xeex boobu ba ñu ne moom jàpp nañu Isa daaj ko li ci yahud yi jublu mooy toroxal Isa ak toroxal nasaara mais bi ñu demee ba ci biir la lenn ci nasaara yi gëm wax jooju kon qadiya Isa alayhi salaam qadiya la boo xamante ni. bu wuuteeg bindu nit ñi la isa léppam keemaan la léppam keemaan la lenn loo jàng ci dundam rek dangay gis ni wuute na ko beneen bindeef borom bi subhaanahu wa bokk na ci yi mu ñu njëkk a wan ci isa li mu wuuteeg nit ñi bi jiitu ñun ku judd da judd ci ndey ak baay loolu mooy aada loolu lañ xam ku judd dangay am yaay am baay borom bi indi isa mu am yaay te amul baay kooku benn keemaan la ci keemaanu isa alayhi salaam isa ñëw na jamono am yaay amul baay ni mu amee yaay amul baay nag moo indi iskaal ci diggante yahud ak nasara loolu moo leen indil jaxasoo bu metti bi ndax ci aada xamuñu woon nit juddu am yaay amul baay moo tax yahud yi dañ ni maryam dafa njaaloo wal iyadu billah yàlla nañ ci yàlla musal muy fen wu mag xam ngeen ni Mariam ëpp na muy njaaloo koo xam ni boo jàngee suuratu Mariam wala nga jàng alkuraan nga gis xiwaar digganteem ak Jibril di nga xam ni Mariam du njaalookat mariyam du njaalookat ndax Mariam bi ëmb bi amee ci moom gis nañ ni mu jooy jooy yu metti jooy jooy yu metti lu mu wax yaa laytani mittu qabla hada wa kuntu nisyan mansiya aka neexoon ma bañu dund kon kooku du njaalo ndax xam na danger bi nekk ci njaalo bu delloo lan lay wax ay mbokkam te mariyam battul la te ci jàkka lañ ko yare kon aaya bii rek dafa doy sëkk ne Mariam du njaaloo kat léegi ñoom yahud jiñ nañu Mariam njaalo muy benn mbir beneen bi bi Isa ñëwee am yaay amul baay dañoo wax ni ñoom nasaara ne kon isa yàlla la ñenn ci ñoom wax nañ ko yahudi ñoom it wax loola ngir tadlil nasaara ngir réeral leen yàlla subhanahu wa taala ëpp na muy am doom bi ñu ko tuddalee doom li mu wax samawat تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن walada bi ñu ne yàlla am na doom asamaan yëngatu na suuf yëngatu ba ñu nar a daje doon xaar rek ndigalu borom bi mu ne waaw rek ñu tampongante mboolem ko ne ci kaw suuf dee kon loolu ñu wax ne yàlla am na doom xas gënu ko yi ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala borom bi li mu am mu ëpp doom ñii am doom yépp moo leen bind mboolem loo am yàgg sa alal ki bind kay defe naa ni loola moo ëpp doole di am doom te keemaan bi nekk ci am doom dafa am sifatu naqs bu ci nekk nit balaa am doom fa muy jaar dafay làqatu kon loolu melokaanu wàññeeku la loolu darul borom bi subhanahu wa taala beneen bi pour dindi lënt lënt yooyu ci bopp yahud ak nasaara xam ngeen ni aadama alayhi salaam moo waroon gën a nekk problème isa ndax mariyam isa am na yaay su ko neexee mën a yaay waaye aadama du wax yaay du wax papa amul kenn ku mu gis borom bi ne inna masala isa inda allahi ka masali adam xalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun mu njëkk leen delloo ne leen bu fekkee melokaanu isa da leen a jaaxal ci li mu am yaay amul baay mais am na ku gën a garaaw ki gën a garaaw mooy aadama aadama amul yaay amul baay isa bu gessoo dina ni yaay لما وبرم بوالدتي ما آدم كان لا يدفع البر بو أمور كون آدم أمور ياي أمور باي وهنا واحد في منك مو يهود بني وخلي ديك صص دنتي جبل تضليل نصارى أك ومن صار نهجهم دنتي جبل ريرلو نصارى أك كتب كسينيون يوم خمنا ني مريم أمنا دوم بواسطة جبريل leer na ci seen bopp ndax am nañu téere jàng nañ ñaareel bi xam nañ ni isa am na yaay amul baay waaye nag comme dañoo fiire nasara yi nga xamante ne ñoo ñëw daaneel seen ak nguur daaneel seen ak diine kon ñu samp ay xeex ci wàllu xel samp xeex boobu ñu samp ci wàllu xel nag ci la ñu yóbboo ñu bëri ci biir nasara yi kon ñeenti iskaal yi nga xamante ni moo am ci mbind doomu aadama yëpp nit ñi génnuñu ñeent bi jiitu mooy am nday am baay ñun ci ñu lañ bokk te ba àddina tukki insha allah loola moo def dootul changé bu neexee borom bi subhanahu wa kon ku juddooti rek dafay am ndey dafay am baay que ça ñu xam baayam wala ñu ñàkk koo xam mais day am baay léegi kenn mënatul dem ñëw rek ne damaa am doom nax bu metti boobu jal na benn xeet ci nasaara ba ñu jàpp na ñoom mën nañoo am doom te duñu sëy boo xoolee lu mel ni abe yi ak sœur yi sœur yi ñoom dañ ñi dañuy jaar yoonu Mariam ba am li Mariam am moo tax nga gis ci ñoom sœur yi duñu sëy nga fekk abe yi ñoom it ñu ne dañuy jaar ci yoonu Isa duñu denc soxna ñaar yi nekk iskaal bu mag ci ñoom parce que bu ñu toogee ni duñu sëy kañ la am doom du sotti moo tax borom bi ne wamaara fa maara awha xaqa saa bu ñu demee ba jàpp ne lii mun na nekk munta nekk nit buy lekk xorom di naan di di di sangu di dox am na lu nekk ci yaramam gariza jinsam bu yëngoo rek mu sëy mënoo ci dara ndax ay xayawaan la yu dox ci yaramu nit nit dafa soxlawoo sëy moo xam muy yonent wala muy wàlli wala muy xut bu noo toll nu sa daraja tollu da ngay soxlawoo sëy soxlawoo sëy boobu nag su nit ki demee ba bañ koo def ci jigéen ak góor fa muy mujj mooy def leneen lu ci bokkul loolu moo tax ngeen dégg fan yii bi ñu waxee ne pape bi day la mu indi problème da ngay dégg ñu jox problème pédophilie nga dégg ñu yox ne église bi léegi dafa bëri njaaloo loolu coow la boo xamante ne ba tey nit ñi xam nañ ko xam bu wér ndax ki nekkoon seen seen njiit bu ne bàyyi na magam moo ko mag magee sept ans mi ngi fa ba léegi di liggéey kon problèm mu âge posé wut problème feebar posé wut mais muskila bi na ci biir neexatul régler loolu bokk na ci li ñu wax ni moom moo tax bonu waa sees daal di daw kon la muy taxqiq di ko dëggal mooy li borom bi wax rek fama raawha xaqa riayatiha moom daal coow li bëri bëri mënuñu ko sàmm ñàkk a denc soxna moom mënta nekk ñaareelu iskaal bi mooy am ndey te amoo bàyyi boobu bu isaa la isaa am na ndey amul bàyyi ñetteel bi mooy amul ndey amul baay moom it benn lay doon muy aadama alayhi kenn du ko ci fekkaat aadama amul ndey amul baay ñeenteel bi am na baay amul yaay muy hawa hawa moom nga xamante ni am na baay amul yaay bu geesoo ne papa aadama lay wax parce que ñu ngi ko bind ci faaru càmmoñu aadama alayhi salaam loolu bokk na ci li tax jigéen xel mi gàtt loolu bokk na ci li tax jigéen lu mu def ñu mën ko koo baat loolu bokk na ci li tax jigéen mu nekk koo xamante ni benn jigéen nisfu la pour nga am seede ñaari jigéen am loolu am na lu ci borom bi jublu subhanahu moo tax euh, mag ñi doon wax ci misaal ñu ne liy njëkk a dee ci yaramu jigéen liy njëkk a dee ci yaramu jigéen mooy xelam jigéen lii njëkk a màgget ci yaramam mooy xel mi parce que xel mi du jàpp xelu jigéen du téye bu kontaanee fàtte su meree fàtte te ñaar yi moo ci doomu aadama imma nga kontaan imma nga mer jigéen mooy koo xamante ne bu kontaanee loo ko defaloon fàtte na ko su meree loo ko defaloon fàtte na ko kon loolu bokk na ci li tax ñu ne bind bi ñu ko bind ci faaru càmmoñ lii mujjadee ci jigéen mooy làmmiñ jigen lu mu magat magat bay nax lamin bu du magat du nax keman la bo xamni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ci ben hadith neena inna an nisaa khuliqna min dila wa inna awaja ma fi dili ala fastamta'u bihin ala iwajihinna neena jigen dañ ko bind ci far te far dafa deung ku ne xamna ni far nim bindo dafa deung neena nak li gën a dëng ci yaramu doomu aadama ci jigéen mooy la kawe la kawe mooy lan ay lisaanuha jigéen bindam lépp dëng yonent bi neen bi gën a dëng mooy alaahu alaahu yaani lisaanuha jigéen làmmiñam dafa dëng fu mu waxee rek wax lu ëpp fu mu waxee wax lu ëpp moo tax ñaari baat yi mu waxal xas la wala mu saaga la wala mu def lu ëpp ndax yonent bi moo ñu leeral ni li gën a dëng ci yaramu jigéen ginnaaw faaram mooy làmmiñam jigéen mooy koo xam ne bu ngeen jotee yaa ko tooñ même bu yàqoon jaxase ba mu jeexit boo ñëwee jotee moom ku ñëw yow lay yedd ngay xuloog moom ba pare nit ñëw na la yaa ah, yow tamit kii jigéen la rek kii jigéen la rek xoola ma loolu <laughs> kon keemaan la boo xamante ni ku ci yore jigéen il faut nga bàyyi xel ci lu mel noonu gis nga Isa bokk na ci keemaani juddoom bi Mariam laajé jibril ne ko waaw nan laa mun a amee doom te sëyuma jibril nekk fa di ko leeral dara ndax xamu ci dara yàlla da ko yónni mission mu def ko daf ko ne rek qaala kadaliki qaala rabbuki huwa alayya hayyin naj'alahu ayatan linnaas lii dong la de dañ maa jox mission dong ma indi nii daal la sa borom wax nee na naa la ko indil te yàlla moo ma yilif moo ma yónni ñaareel bi sa doom bi keemaan lay doon kon boobu la Mariam tàmbalee xam ne jur na keemaan ndax jur keemaan weesoo nga am doom te jege woo góor bokk na ci la mu waxoon nan laay amee doom walam yamsasni basar walam aku baxiya benn góor musuma laal musuma wéet ak benn góor te man dama koy jaay boppam dama koy joxe boppam kon loolu nan lay amee jibril na ko ndigal lañ ma yónni ndigal li danaa ko def ñaareel bi sa doom bi aaya lay doon kon gis nga borom bi la mu leeral ne yahud yi lañu wax ni dañoo rey isa reyuñ ko te ba tey yahud loolu lañ gëm ba tey dañoo gëm ni dañoo rey isa dem na ba afkaar yooyu das nañ ko ci islam dugal ko ci yenn xeet yi ba tey dem na am na ñenn ci julli ñi ñu am pas-pas bu sew ci mbir moomu dem nañ ba jàpp ni isa dañu ko rey moo tax borom bi subhanahu wa taala nee na wa inna alladina ixtalafu fii لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ني ووتا تي ميروم عيسى تي سيك رك لا ني نوب تي سيك رك لا ني نيك اك توپ نجورت نجورت دوم ادم خام نان ني وي ان بعد ظن اسم كون بروم بي سبحانه وتعالى نانا وما قتلوه يقينا لي تامين مو اندوال اشكال تي ين بروم خام خامي ين بروم خام خام اي تيوريست لاني dem nañ ba jàppoon ni wa maa qataluhu yaqinan kon isa qutila lakin muskila moom mooy man qatala léegi seen problème moom mooy am nañu ne isa rey nañ ko mais kan moo ko rey bokk na ci ñi wax loolu am na yenn borom xam yoo xam ne du ma cité seen tur ay muasir la ñu woon bi ñu génnee àdduna yàggul ku mel ni jaadul xaq bi nga xamante ne nekkoon na azhar moom bokkoon na ci yooyu mais dem na ba ci ginnaaw mu génnaat ci tantaawi kazalika wax na loolu ci tafsiram mais loolu mooy mooy problème bi mooy wa maa qataluhu yaqinan yàlla subhanahu wa mooy waxee nu ko soob wa maa qataluhu yaqinan bu ñu jàppee ne rey nañ ko it ka ñu rey du du moom la kon yaqin loolu lay tekki borom bi leeral nag ne wàccu mujj jamono keemaan lay nekk loolu ummatu muhammad rek ñoo koy am sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te Isa buy ñëw day jege bis pénc xam ngeen ni bis pénc tey ñu bëri ñu ngi ko yéexal borom bi nee na innahum yarawnahu baida wa naraahu qariba bi yonent bi ne ana wasaak haatayni ni mu yàggee junni at ñeenti téeméeri at fanweer ak nangam ba tey ana wasaak haatayni bu dee ci sa calcul yow doomu aadama dafay yéex waaye loolu calculu borom bi la subhanahu wa taala borom bi nee ñëwuk isa wa innahu la ilmun lissaaca fala tamtarunna biha wattabicuuni هذا صراط مستقيم loolu xam-xam bu leer la ci ñëw bis penc kon bu leen sikk ci ñëw Isa alayhi salaam kon Isa dina ñëw waaye Isa ñëwam lan mooy njëriñam est-ce que daf ñuy yokk wala daf ñuy wàññi Isa avant muy ñëw fekk na diina ji mat na al yawma akmaltu lakum diinakum diina ji mat na kon Isa du ñëwaat yokkul lu bees ñaareel bi mënut a yokk ndax du yonent ci ñun maanaam nekkul yonent ci suñu xeet. yonent la ci giiru yonent yi mais nekkul yonent ci ummatu muhammad kon dinañ ko bàyyee daraja nubuwaam mais dootul changer dara te loolu umar bnu xataab radiallahu anhu jàngal nañ ci dars bu leer bi yonent bi feebaree ba bisu alxamis mu julleeg sahaaba yi tàkku saan daf leen wax ni jox leen ma xalima ak daa ak fëy ma bindal leen ci seen diine mu am ñu jóg di seeti umar bnu xataab jóg naka yonante bi doy na doo bind dara diina ji mat na lépp mat na yonante bi yëngal boppam teg loxom ci Umar xam na ne Umar moo dégg wax ji yokk amatul lépp lu ñuy yokkati ci diina ji jeex na keroog ci xajjatu wi daal lu ci waay yokkate bokkut ci kon Isa du ñëw sans vel ñu dara dara dara bokk na ci ñaareel bi mooy ñëw Isa li muy defar bokk na ci nasaara yi dina leen delloosi ci ñi nangu del si dañuy doonaat julit génn ci christianisme christianisme dafay raaf ci kaw suuf dootul am nekkab nasara dootul am ci kaw suuf ndax bokk na ci keemaan yi isa di ñëwaatee loolu du ko fiy jëlee bu isa ñëwee beneen diina dootu fi des lu dul diinay islam keneen ku fi desit ci diina islam da nga jaamoo yàlla borom bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yonente yàlla isa dana wàcc buy wàcc am na ñu ne waxtu tàkkusaan lay wàcc ñaari malaaka ñoo koy escorté mu jël ay loxom teg ko ci mbaggu malaaka yi fan lay wàcc mi ngi wàcc sharqay dimashq ci sham siri tey foofu coow li am ci càmmuñ siri foofu la isa di wàcc alayhi salaam te buy wàcc nit ñëpp dañu jàkkaarloo moom di ko séen mu départ ak asamaan bi ñëw balaa wàcc dafa am benn ngelaw bu sedd buy ñëw ngelaw boobu ku mu dugg rek da ngay teen bu ñu téene rek ñu seen luy ñëw ñu ne waaw lii lan la dem ba ci yàgg ñi yàlla joxoon njub ak baax waxuma xam-xam de ñi amoon njub ak baax di jaamu yàlla ñooñu dañuy sentir ne isaa la ñu gis ni dafay ñëw bu ñëwee nag mi ngi wàcc ci qubbatu bayda yonente bi sala sallam wax na ci mujim tabarani nee na yanzilu isa inda ينزل albayda عند المنار nee na isa dana wàcc ci واتي منار ci côté دمشق lan la Isa di liggéey li ko fi indi juróom-ñeenti mbir la du bi jiitu mooy xatluhu dajjal Isa day ñëw rey Isa rey dajjal te fu mu koy reyee inde baabi ludd ci Filastin dafa am benn dëkk bu ñuy wax ludd ci Filastin ba tey tur bi changé wut ludd boobu mi ngi ci ginnaaw bande de Gaza ba léegi ludd lañuy wax dëkk boobu foofu la iisa alayhi salaam di wàcc tàkkusaan Abu Daawud solo na ci hadith bu wér neena yonent bi neena laysa bayni wa bayna isa nabiyun wa innahu nazilun fa idha ra'aytumuhu fa'rifuhu neena sama diggante ak isa benen yonent du fi am kon kep ku wote wo yonent fen len fen lo len yonent bi nag digeuntem ak isa amul benen yonent buy dox ci digeunte bi neena isa day wàcc su ngeen ko gisee xam leen ko xam leen ko ñu ne yonent bi isa nan la mel mu ne rajulun marbuu ku yem taxawaay la am na ñu ne marbu moom mooy njool tuuti ñaareel bi yonent bi wax xadis bi nee na ila alxumrati bayaat nee na dafa xaw a xeereer moom isa nee na ka anna rasuhu yaqtur wa in lam yusibx balal nee na day mel ni bopp bi day toq ndox donte ndox tooyalu ko mais ndox moomu fu mu koy indaalee allahu aalam yàlla xam mais dañuy gis jébi day toq ndox ndax karaw gi ni muy baramoo wàcc ci wetu jébi day ñëw ba ci jébi karaw boobu mu mel ni boroom karaw gu bëri bu karawam tooyee te xam ne day jékk ba ci yàgg rek ndox mi siit noonu noonu la isa alayhi salaam di mel beneen bi bokk na ci isa dina ubbi baytul maqdis ndax dajjaal bu tàmbalee rey jullit ñi ànd ak juróom-ñaar fukki junni yahud ñu yore ay jaasi jullit ñi dañuy tiit ba dugg baytu maqdis tëj ko suñu ko tëjee dajjal du ko mën a uppi moom ñi mu àndal léegi jullit ñaa ngi ko tëj di jooyoo foofu ñii di tudd yàlla bu Isaa ñëwee li muy njëkk a def mooy nañu ubbi bunt bi su waxee rek nit ñi dañuy ubbi bunt bi bu ñu ubbee bunt bi rek ci lay seen dajjal alayhi laanatullah ci la koy rey yonent bi nee na Isaa da koo bëgg rey ci jëmmu boppam mais bu dajjaal xoolee Isaa day seey comme ni xorom di seeyee ci ndox te isa def ko naan inna li fiika darba lan tanju min am na dóor bu ma la war a dóor doo mucc mukk il faut ma dàq la ba dab la daal di la koy dóor ñetteel bi yàlla dafay jox isa xet boo xam ni xet bu keemaan la ci mujisa yi la bokk xet boobu xetu parfum bu neex la kenn mënu koo misaal ci àdduna waaye xet boobu bépp yéefar bu ko noyyi rek da ngay daanu dee yéefar bu ko noyyi day mel ni atomique julli ñi buñ ko nooyee dañuy yëg parfum bu neex mais yii fu mu toll bu ko nooyee rek dana këndëng daadi di dee ñeenteel bi dina ñëw ci ñi nga xamante ni yàlla musaloon la leen ci dajjaal moom Isa mu raay seen kanam raay seen jëmm ñaanal leen ku nekk mu lay wax sa daraja ci àjjana diw yow day ñeenteelu àjjana fa ngay nekk diw yow di nga nekk mawa yow di nga nekk fee allahu akbar yàlla nañu ko yàlla def macha allah dara gën te neex loolu Isa jàkkaarloog yow na li fa daws laa ilaa yàlla nañu ko yàlla defal yàlla bu mu ñu ump te loolu Isa di wax day am ndax borom bi moo ko koy xamal te jàkkaarloog ñoom bu ñaanee ba pare kenn ku nekk mu lay wax keemaan bala yàlla defal ci àjjana beneen bi bokk na ci ñëw Isa ñaan yàlla pour yajuuj ak maajuuj dee xeet woowu tamit bu leen ñaanalee. seen dokk yi dafa am ay sax yuy wàcc waxoon naa ko ci dars bii paase sax yooyu ñuy bënn dokk ya juuj ak maajuuj ñu daanu dee loolu ci ñaanu isa lay ñëw juróom benneel bi ci keemaan yi isa di indi mooy yaqtulul xinziir isa du dund ak mbaam xuuf ci kaw suuf bu isa ñëwee rek mbaam xuuf jëg mbaam xuuf yépp dana leen rey am na ci yoo xam ne du leen rey ci loxoom mais dañuy mel rek yàlla dogal mbaam xuuf dootul am ci kaw suuf dañuy disparaître umma la boo xamante ne dafay jeex ñoom mbanku ndax ñëw isaa boobu amaan na li tax loolu di am mooy liñ koy lekk te daganu amaan na mais loolu tamit wax nañ ci wax yu bëri yoo xamante ne moom amut njëriñ juróom-ñaareel bi isaa dana toj croix yépp fu mu fekk ñu defee ne croix dana ko fomp fu mu fekk ñu def croix statue dana ko dam lépp wa yakfiru salib croix dootul des ci ko xam nga croix shi'aaru nasaara la te croix boobu di shi'aaru nasaara isaa lañ ci daaj di ko wane motax bu ñewé lolu lepp daf leen fi jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne walladhi nafsi bi yadihi la yanzilan ibn maryam hakaman ولا يكثرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يدعن الجزية ولا تذهبن الشحناء من الناس ولا ينقذن التباغض والتحاسد ولا يدعن إلى المال فلا يقبله أحد يرد صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم نينا جنيا تيالا من خمني سما بكان من جيت لخوم Isa dana wàcc léegi nag muskila bi dafa am yenn ci borom xam-xam ñu ne nuzuli Isa xadiis yi ci ñëw yu ci bëri ahad la mais xadiisu ahad du tee dañ koy gëm ci baabu baabu aqida de jàll ñaareel bi wax bi dafa wér péng am na yu ñëw ci ahad ak yoo xamante ni ñëw na nekk saxiix wér lool amul benn benn jafe-jafe kon yonent bi ne ne giñ naa yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom Isa dana wàcc nekk àttekat bu jub hakaman adlan Isa dana toj kurwaa yi dana rey mbaam xuux yi Isa dana teggi galag galag mooy impôt yi ñu doon teg ahlu zimma yahud ak nasaara yi nga xam ne dañuy dund ci dëkku jullit te war a fay impôt yooyu Isa da koy dindi ndax bu Isa ñëwee christianisme dootul am judaïsme dootul am beneen diina dootul am. beneen association dootul am beneen pas-pas dootul am islam rek moom mooy def ci kaw suuf yonent bi nee na wala yadhabanna shahna nit ñi danañ dem ba dootuñu iñaan dootuñu bañante yonent bi ne ne yàlla dina fi jëlee soxor léegi nit dana yore alalam ut ku mu ko jox fekk mu sujjóot di julli du nango pare ndax lan moo tax jamono boobu day nekk jamono yi nangu ndax suuf si lépp barkeel la su nit ki sujjóotee yàlla may ko lim lim bëgg wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan gadaqa di nga ñëw di sarax ab jullit mu ne la soxlawuma sax ne allahu akbar sujud allahu akbar yàlla nañ ko yàlla defal kon buubu jamono buubu nit ñi dañuy fees ak ngëm feesin boo xamante ni bokkaale dootul am waaye bidaa dootul am bokk na ci barkay jamono boobu yonent bi sallallahu sallam nee na benn doomu grenade mbooloo dinañ ko lekk ba ñëpp suur mu des benn doomu grenade nee na taakuluha jamaa aw isaaba mbooloo danañ ko tiim ku nekk di lekk di lekk di lekk ba ñëpp suur grenade bi des xoole grenade ni mu toll ni mu tuutee waaye lu muy wane yàlla day def barke ci kaw suuf su defee barke ci kaw suuf léegi loo yore dafay daal di des juróom bi mooy Isa ñaata at lay def ci kaw suuf ala saxiix ñeent fukki at Isa dana ko def ci kaw suuf si su defee ñeent fukki at ci kaw suuf si nag day dem ba islam stable julit ñëpp nek ben mbagnel dootul am def lu bon dootul am tawhid mom moy am bidaa dootul am jakkay day tàmbale fess ñëpp di jaamu yàlla waye taxul nak ñu def isa yonent comme yonent dañu koy jappé dara daraja yonent nak ci respect lépp dañ ko defal nak waye nak yonent dootul ñëw ginnaw muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ñeen fukki at yoyu jotee ci la isa di génne aduna day aji su ajee umra ba pare ci lay jóge ci umra ba dem madina su demee madina ziyaare masjidul rasul ba pare ba nit ñi génn du ko xool ci waxtu boobu la isaa di génn àdduna alayhi salaam mu doog a dee nag al mawtul dee bi nga xamante ne nag moom mooy dee dëgg bi nag ca la isa di génne àdduna ñépp dañu yëg ni isa gaañu na ñu yëgee ni isa gaañu na kenn ci jullit ji moo koy jiite laalla imaamu madina lay doon ndax am na ay wax yu ko wax am na ñu ne imam ba lay doon am na ñu ne kenn ci mbooloo yi lay doon am na ñu ne mahdi la ala kulli haal loolu amu ci lu leer mais jullit ñi ñoo koy jullee su ñu ko jullee ba pare nag ñu am muskila fan lañuy ñuy suul isa ndax dañu koy yóbbu baqi te buñ ñee baqi ay jullit ñoo fa nekk waaye isa dafa am daraja yonent am daraja saxaaba ñu ne fan lañ ko yóbbu ñu ne kon nañ ko yóbbu nag ci xijru aisa alayhi salaam alayha salaam mooy néegu aisa buñ ko yóbboo néegu aay ci diggante yonente bi ak abou bakar ak umar ci diggante boobu la ñuy gas xam ngeen abou bakar mu ngi ci jàpp mu ngi ci ndeyjoor yonente bi diggante boobu dafa am benn espace bu fa def ñi dugg ci biir xam nañ wax bii bi ma ko liiree doon ci def bax wax naa ko suñu benn ustaad yàlla dimbal na ko dem na ba dugg foofu xool na ko ba ne ma ustaad li nga wax ni seetlu naa ko am na fa espace boo xam ne nit xaj na foofu nekk bërëb boobu fi la ñuy suul isa alayhi salaam kon loolu moom mooy ñëwu isa subaha yi ci nekk yépp bëri na mais jullit day dellu ci alquran dellu ci sunna ndax moom mooy suñu njëriñ beneen bi ñu góorgóorlu ci njaboot gi góorgóorlu ci wax dama koy wax toujours bu ngeen waxul rek am na ñuy wax kon bu leen noppi de iblis ay gaayam ñu ngi ci mbedd yi wax ñu ngi ci bërëb yi wax kon ku am kàddu gu mën a wax jottalee ko islaam defal yàlla nañu yàlla defal barke defal ñu nasru defal ñu yusru ñu jéggal ñu ci guddeelu wax bi fa nekk bunt boo xam ne subha yi ñoo ci bëri moo tax mu xawoon gudd nii هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته